duma kilay njëkk waay duma kilay mujje waay maa gën a tuut ci ni la xam naa li ma leer te wóor li ma wóor te wóor yaay jaami yow lan doon seet yow la yow yaay muhammadu rasulillah

defoon nañ ko daaw jéeg fekkee déwén defaat ko daaw ren ñu bëgg ko tollanti le deux nag lañ koy def di ci woo waa Sénégal di ci woo waa àdduna di ci woo waa di lancer message nag képp koo xam ne soppe Keba sekk nga ñu ngi lay woo ci bés bi nga ñëw jàpp si di lancer message son excellence lah, monsieur le président de la république ndax li social la té mom dafa né ren atum social la té képp ko xamné day dox ci social dang ko wara ñëw jappalé duggal sa loxo di wo soxna ma dem fay sal di wo ñu bax ñi nga xamanteni ñom keba sek da leen di bégé di wo ñëpp di wo monsieur lat diop mi nga xamanteni moy sama leader di wo wa gédja way yépp di wo wa pikine di wo wa diaspora kon gaay inshallah le 2 le rv bu yëkër keba sek mayé ndoku ci katunu yalla jërëjëf di wo wa gédja way debu

Adama Tall bu xees yéen ñëpp kontaan nañ ci yéen gis nañ ni ngeen taxee fan si club yi waaw ca kaw ca rappelé ko le 2. le 2 incha allah Kër Keba Seck maye ndogu troisième édition. waaw ah. jaajëf. lu ci waay def rek. suñu borom nga ko defal. ndax la ndax weeru koor la. koor la te wooru weeru promotion la. Eh. kon gars yi képp koo xamante ni da nga doon def benn weer bi danga war a def fukk. ndax boo defee benn suñu borom fay la fukk. donc El jërëjëf ba tax na. El Vision ay caaxaan. El Vision du ay caaxaan. mi ngi ñëw dal seen kaw. Elvision Média. réew mi déglu di ko seetaan. Sophie lépp fi lay leere. liggéey rek a wóor. fii donc fii rek fii kese ci Elvision fii lay tàngee fii lay xoyom xoyomee du feneen maa ko wax. nit ku baax xam nga lu mu war a ñax ak salaat du ñu benn ku weddi bi nee Euh, di def lu bari di wax lu néew réew looloo koy doxal réew wax ju bari di ko doxal mais jëf moo koy doxal soo bëggee lu leer nanga ko jàpp lépp fii lay leeree xam naa ne ñii doomi réew mi lañ ñun ñëpp ñu ànd doo dem ca kaw laay lële laaw lu ne fa nga kenn du ko jeex yéen lay béggee nit ku baax daa waram gis-gis ba mel ni ñoom yéen amuleen moroomi leen ñaanal gudd fan ak wér te xam nga àdduna booy bëreg moom da nga jël yàlla def ko sa entraîneur nga jël muñ def ko sa entraînement yàlla kumu ko sa ku lay gañe suufa ñu dàq muñ foofu tu mu ñu mujjee toog baa mënta ñàkk wala dugg bett